الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدو بي تي بي جسان فيدو بي بفي من أبين بأكسي أمنا سن باكو مو يا الله في لكو مومي مومنا كوشي برب بن يكر باخرك چلا نك بيالا جلقو فيش برب بي ñu ngi ñaan fële mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee bépp coono boo xam ne mu ngi doon jànkuwanteeg moom dal na jeex takk yàlla bu mu taseeteeg dara lu may luy seddal kolom ak lu koy bégloo Baay dafa wax ne yàlla te jëliyaatami yi ci neex ak yi naqadi leg leg ñoy and ay nit ki gem yalla lolu mënu koo jaxase mu ngi ko wax ci gamam gu mujji bi mi gàmm ba ci mujji delegation bi joge won Banjul di wax nan ko waw buuru julit bi gañu faisal mi gañu nangam bayina ko waw ñun ngay bis bi nga gis bi judd ci ci la yonent bi uy ji boromam waaye ñun judd bi lañuy feetu waxuñ ci léegi judd bi lañuy ñuy feetu ndax mooy xéewal léegi musiba la moo tax fàttalikuñ ko tudduñ ko tudd itam moo tax ak luñ mën a wax lu yàlla mën a def ci ay tëjëliyaat def na yeneen tëjëli yoo xam ne ku ko xool da nga ko gërëm da ko sant ba doo xalaat leneen lu ñuy wax sax salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.